musuma nekk dans une circonstance donnée tey Bougane message ma wala mu woo ma ne ma Pape Djibril courage fonce dëgëral te moom jàmbaar boobu daf koy firndeel wax dëgg yàlla ndax fa mu jógee ak fi mu agsi tey ku jàmbaarul doo ko def maa ngi gërëm bi nga bi nga yeewoo dégg nouvelle nan la instant ci saa si moom laa bindanteel moom mi nga xamante ni moom mooy borom këram euh, mu confirmé ko ma ko moom ci boppam moo ne ma jigéen bu baax euh, kon ñoo ngi ñaan suñu borom seede boobu nga xam da koy jëriñ yàlla na daje ak ngërëmal suñu borom ak ci di jaale Sénégal di jaale le monde de la presse di jaale aussi le secteur privé économique parce qu'elle était aussi dans le secteur privé donc di ko Sénégal di ko tamit turandoo muy soxna moom bi nga xamante ni la sëñ Khadir wax ne moom moo ko yóbbu moo moo yóbbu ci Abdou Khadir mu doomu ngeen taxaw la presse ñu jara delloo njukkal ngeen kii fi jóge tey sunu doom la di doom ci Thione Ballago Seck sunu mag yàlla fi kaa jël di xale bu baax xale bu effacé wu woon hmm. ñu bëri maa ngi gis ñuy posté beneen doomu Thione Seck loolu li ko waral hmm. miinuñu kanamam te ci média la doon liggéey hmm. nekk directrice de média kenn mosu ko dégg ci coow effacé wu am diine toog ci peggu ndayam ba yàlla ñëw. ñu ngi leen di gërëm nag di leen ko jaale. parce que ku ne Thione Seck wax presse. ku ne Salam Diallo wax presse. ku ne Abou Thioubalo mii ak Fallou Dieng ak waa kër Youssou Ndour fi teew yëpp. wax presse sunu doom Wally nag nekku fi. waaye ñun ñoo ko fi nekkal. Euh, lépp lu ci mënti am. Euh, dinañ leen ko yëgal ci communiqué Keba Seck mi ngi nii sama ginnaaw di ñëw mhm. Ousmane Seck mi nga xam ne mook baay bu ñoo bokk ndey baay ñu nii suñu ginnaaw di ñëw mhm. yéen ñu fi des yàlla na leen fi yàlla yàggal ci barke sëriñ sa lan nga gën a lan nga gën a remarqué ci jëmm ji fi jógee tey xanaa déggoo li ma wax sànq effacé wu yaru mhm. teey dem nañ ba di ko jaawaleeg beneen sëram te ci média lay jiite fa mu fa nekk directrice la. Mm-hmm. waaye kenn xamewul kanamam. kañ nga mujj a déggante ak moom. toujours chaque jour parce que sunu doom la du nu mujj a mus a gëj a mm-hmm. ma pare na sekk mi nga xam ne moo tax ma xam famille bi moom laa njëkk woo jaale ko mu ne ma amoo koo ko jaale sa doom la demal nga denc ko ñaanal ko yàlla donc ñu ñëpp ñoo ngi leen koy jaale. merci beaucoup ko ñaanal yàlla fa mu jógee. amiin fa mu fa mu jëm yàlla ko gënal fa mu jëm. amiin yàlla jërëjëf jërëjëf merci

yàlla ko suñu boroom boole ci àjjana yi gën a kawe xare ko yàlla na mottale ndawam àjjana maa ngi ko jàlle toute la famille waaw toute la toute journaliste yi maa leen koy jàll ndax tamit euh, chef la woon ci li mu doonoon jëkkëram déggoon na ko liggéey bi te mos see kenn xaar ma yàlla donc ñun ñoom itam ñu ngi leen di ñaan ngeen ñaanal ko yàlla xare ko àjjana fi mu jëm gën a jërëjëf